boy dama koy rey billahi dama koy rey ko jekku dama koy rey da xool dama koy rey xatit dala lu xew man xam naa ko man tey xoolal suñu bët ñeent na waaye rendi naa ko nga xaar lu muy rey dina rey ak li nga yore ni waaye yow yow xam nga la la est-ce que xam nga li nga yore ni la ma arme bayu dag wax nga ma ñi soo ko génne waale fii lu nekk mun na see xew. waaye lu jëm ci ma luy xew. mais xoolal xoolal suñu bën na mooy ren naa ko xam yow man yi ma nekk en Europe yëpp moom mi ngi ñëw fii di fréquenté suma jabar. jabar ci biir kër gi ma bi n'importe quoi. arme blanche la. waaw bàyyi ma nga ne arme ba. ci gar ko. déglu ma wax ah? ngay wax anamu. dem na. ay mbokkam sa ñoo ngi Jangan koy seet gisuñu ko dem na moo yee ñëw mais bu xoolal tànk ci suuf jaan ci suuf xoolal yàgg-yàgg daan daje nekk xoolal bu koy wéeri jaari naag li tax mu daw sax te war ngaa xam gàcce ji ko dal moo tax mu dem lu jëbi ma lool mais fu ma ko dara man juguma ci si kër gi dara umpuma ci gis nga ceer non teer sama teer sama doomu day ma. teer moom laa la wax moom não não não não sama doomu não ma. non non non attends não não attends attends xoolal. déglu ma non non attends. sois très clair. moi j'ai besoin d'une explication. gis nga laay. compliqué. attends attends attends parce que tu parles de tiers quoi. não moom laa quoi. mais non tiers sama doomu day ma. tiers. 这跑，别了吧？ Ahmed dëkk bi tàng na de xam nga su ma nga toog man man naa confinement bi yàlla boobu ba léegi moom maa fi ah woi woi, waaye yàlla baax na jaamal ba xam yàlla ak dogalam su ma ko xamoon ni ma ñëw xaalis rek sama sama jarbaat bi moom boobu ba léegi waaw aussi ah waaw Aliou jàll jàll ziar naa la bayal ci jàmm man tam jàmm dama ne dalaw ko yow waaye yow nag ay yéen da ngeen da ngeen mo naaje waaw nga xam rek bu ko xey tan ta di par rapport ak de de mo wax borom ko day dara yow waaw loolu dem dëgg la xam nga jaar na ma ngay séddal ko sëgi dafa ah waaw ma du yàgg soxla woon waaw ah waaw mais kon ah kon nga ko waaye de la ma wax loo ko waxee nee na ma bërki démb ñëw na ci boutique bi doon wax lu kër gi mu ci demee wàllu ceeba ak boobu bagage su seen sawaay yi ñu soxla ma doon koo jànni te kat Aliou kilifa du de te man ñii de hmm. seen kilifa laa dëgg kon jàpp naa lu ma wax nga ko mën a def ndax rek triplé woon ma sa mais gis nga grand bi dafa nekk grand boo xam ne grand bu compliqué la mu nekk nag grand bu naqaree waxal moom loo ko wax rek mu wax la te des waaw dëgg la ndax tax ma gën a laaj sax mooy fan yi néew damaa bëgg def inventaire te képp ku def inventaire ay lépp wala nga ay lépp def naa lu bon. di nga nag nga ni jabaram nag yéen ndax mu dem waaw non non non loolu moom bëgg laa ñu waxtaan ci gis nga loolu njaay ko yëfu jigéen ñi la waaye nag garage bu ko tal mu wax teg boppam ndax muy takk ndaw soosu sama yaay ñëw na ko bul ci dugg kon tey bu ko fii tamit damee day ji waru ko bett waaye nag loolu dëgg waaye ini it moom leen ko war ndax umple woon it baa ngi bëgg a yàgg ci kër te ni ma gis ngeen koy doxalee moom neexul. li nga xam daal waaw. li ma la wax nga bàyyi. jaaraat nit ñi xam nga lan man fi mu nekk nii tax nañ. ah waaw waaw. li ma la wax daal loolu ci bàyyi xel. ah en tout cas dama tax mais en tout cas waaw baax dina wax ak moom. ah bu ko nekkoon kenn du dugal dara ci boppam ban Aliou ñu dëgg bopp nga xool boobu léegi lu ci turandoo lu ci baax am daal jom waaye nag ku jaaxaan ni sa bopp ngay saw sa sa sa xaxay xalaat man man man man man samay wax na ci bés bi bés bàyyi waaye waroon naa xalaat démb bu baax lépp nag ki la defee waroon naa xalaat démb bu baax magam yi sonn ci ñoom torop waaye yàlla baax xam naa ne loolu hangouden CD-teema. Mun beli mai o. Di mun tala kare ni reka hongon mai doi. Ya da kuma kila sama na wata je sekali kore te kar kare ni. Ya da kuma. Yeah, sa fois dama lay woo téléphone sax xaw ma nu mu demee noonu sa numéro bi xanaa doxatul. loolu tax ma déconnecté de. dama lay xool tout le temps en ligne duma la sax gis nam la nga gis fi trop. billaay dama dul am jot rek xam nga affaire laaj. keroog maa ngi dem mariage yu ndey ba maa ngi la bëgg a woo pour ñu ànd mais mooy loolu gisuma la. jot boobu duma ko am billaay loolu loolu. an sa yaay mi ci jàmm. nekk na si jàmm alhamdulilah. déggoon naa sax sama yaay naan sama yaay dafa feebar. maa ngi ko ne. adduna bi moo demee noonu. waa Aliou Laye. feeñagul ba léegi. feeñagul bi mujj ngeen dem rajo tamit. Hmm, man de def naa li ma man parce que def naa dem naa def ko statut sama xarit ku ma gis dinaa la wax defal statut parce que man daal jaaxle naa trop. laaj bu ko loo doon génnee feeñ na ndax sëtu fu ne lañ ko dugal waaye daa nangu ko génne xanaa daal daa xal suuf si dund man kay waaru naa waaru naa trop sax man loolu de laay daal loolu xanaa dañuy xaar beneen laaj rek waaye xam naa laaj bu moom gëmatuma loolu nga yaakaar ñii bi sa tee laaj ku ñu wër ba sonn rajo doom doom mujjee nga dem rajo si moo gën ah dem rajo waaye fu ñu ko war a xool xool nañ ko. amuñu toogaay kay il faut que nga dem rajo nga xool nga wax foofu ñu communiqué ko pour mu fay. loolu dañ fi des waaye lépp lañu def. ah toogaay amatul. xaw na laajte loolu te ñu dem ñëpp bi. loolu moo gën sax il faut que mu toogaay amatul il faut que mu dem rajo. waaye koo la baal naa dund bàyyi ma dem. bàyyi ma gunge la baal naa dund. waaw parce que bi am. waaw maa ngi def waaw nuyu na seer bu baax. luôn ờ lấy số sao anh ừ Amma balanga to ngine la malikum salam ngay dogo to yugo yugo nga taxaw fi nga waxal man ba pare dogo yow la wax de waaw yugo nga taxaw fi nga waxal man ba pare dogo to yow aw mi fa lew fa yugo nga taxaw man waxal man sinon duma la xaar ngomi ngomi bëggee wala quoi dañ laa doon ñëw damay naan ay toog ak dugal ak yooyu loolu lu xew. am na lool yow damay jàkkaarloo yow wax không yow ndax wax ak yow dafa jëm yow tam osé bi osé rek ñëw toog naan na nga lay aw yow li ko def yëpp sama war may na la yow mu ñëw toog naan la ko yaa est-ce que xam nga ne aw di ko may ci baaxam xam nga lool. yow.

kii du xale booy yàq ak du xale booy nekk fii di patam patam kër ga nag lam xam naa ndax yàgg naa faa moom fa doon ñëw neexoon na torop yéen lan mooy seen problème mais yow sarak jooju mel ni lu may jàpp awa du góor à pour lan war naa jeex de dafa war a jeex loolu rek laa amoon si lu may wax ak yow nga jum nag phénomène. nga ne ko lu mu gis nga que ça soit la première et la dernière fois ma ñëw nga may wax naan ay ay wax dugg na fi gën a ok ok waaw. ma war a wax yàqal ma sama sama sinax bi ma doon def sax man nii rek ngeen def aw xam ne daf lim def fii kër gi xam na ko ceeb bu neex mu togg ginaar mu togg yéen bu awa xam boo la lekkee lu neex awaa tax ngeen nekk fii am loo leen di wax. ça m'a énervé wu. waa Cheikh yow lan la damaa dem ci suuf laajte la ñu ne ma yaa ngi ci kaw. effectivement. ma waxuma dara mais nga jël sa téléphone di ma kar kar kar pour lan ci ah te sax nag bu dee fekk waxu kam nga may wax say ba nga teg suuf ndax man kam dama koo suur suur naa ko kël kël kël xam nga lu ma bëgg mu may ma sama baat maa ngi koy ñaan baat ak boobu ba léegi nanguwuma koo may. effectivement awa ma dinaa la kar kere awa parce que nag awa awa dellu si sa xel awa am na li nga xamante ni sii buñ ko bay bayalee dana ëpp loxo.

en ce moment lu doy han man nak dama lay conseil en tant e que xarit demal nga tok nga seyel kamu parce que kamu bëgg na la kamu lu la dara te mun nga ba fi bu ko yak awa je te donne une conseil awa demal nga tok nga sey ak kamu parce que nak taru jigen sey la man loolu la am ci e. lu ma lay conseil point gis nga loolu nga wax non dinañ ci waxat bi sama kam damay e may baat kanta yu man ak yow nak li ci kanam rawuli ba ma ngi dem si leen ak jàmm fii si seen boutique Thiénaba cuuraay ah mbokki Sénégal ubbi leen seen bët te xool fii mooy Thiénaba cuuraay ak ki nga xam ne mooy Alaaji Fall soppey Serigne Madické Seck borom yàlla neen Thiénaba cuuraay ah képp loo xam ne gànnaay la ci néegu sëy yéen jéegi kaay leen ma dey leen ubbi leen seen bët di xool bu cuuraay mi ngi nekk ci marché central bu Kébémer nekk ci ginnaaw robinet marché bi numéro téléphone yaa ngi noonu seen écran ngeen jàkkaarloog moom lépp loo xam ne daal gànnaayu jeeg la ci néegu sëyam dugg si fii ci canaba fii leen lépp loo bëgg lu jëm ci xeetu cuuraay am na xeetu cuuraay boo bëgg lu jëm ci xeetu ay parfum yu góor wala yu jigéen tànn sa bu la neex la lépp lu bëgg tamit lu jëm ci parfum de chambre am na ci biir ay décoration chambre à coucher lépp lu bëgg daal lu jëm si ay chambre à coucher décoration bi lépp lu bëgg daal loo xam ne day baax si sa néegu say daw ci fii ak ki nga xam ne mooy Alaaji Fall soppi sëriñ ma dikk sekk borom yàlla nee ah Alaaji Fall cuuraay ki mooy ambassadeur u jigéen ñi daw si leen boo yegsee ba ci buntu marché bi xet gi moo lay giddi ba ci biir buntam nga ni la boo fëggee ñu tëj yi loo joxoon ñu daal di koy dagg new naa la saa yu ngelaw bëree ginaar sànganu baamu doxaleen ak Alaaji Fall cuuraay ah mbokk yi xool leen ëpp na siyibukanayo negusei